mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp xam ngeen ni jàngoroy coronavirus mi ngi ci biir Sénégal mi ngi commencé di installé bu baax ndax bis mu nekk ngeen dégg daal di yokk fi nga xam ni moom mooy Sénégal jàngoro ji nag xam ngeen ni aussi xàmmeewul ci ku muy dugg xàmmeewul mag xàmmeewul ndaw xàmmeewul ku siiw ku siiwul gis ngeen ay grande personnalité ci monde bi ñu daal am li nga xam ne moom mooy coronavirus fi nga xam ne nag moom mooy Sénégal ñu ngi ñuy xamal ni benn comédien bu mag moom moo daal di am feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus source information bi ñii di waa L'As Quotidien ñoom ñoo ko daal di fësal ñoom ñi ngi ne comédien bi mi ngi animé benn émission bu mag fi nga xam ne moom mooy Sénégal ñu bëri di ko seetaan loolu nag di benn information boo xam ñoom ñoo ko daal di fësal information bi nag ginnaaw bi ñu ko joxee ñoom ñi ngi wax ni képp ki nga xam ne jëflante ne ak waa jooju ak comédien boobu jël nañ ko mettre en quarantaine defal ko test ngir xam ne ngir xam ndax am na coronavirus ndax xam nañ ni coronavirus jàngoro la bu a